yaa yaa ngi wax ak yàlla boo boo jàng alxuraan yàllaa ngi wax ak yow waaye boo jàng xasaay yaa ngi wax ak yàlla ndax allahumma bari na ci lool yàllaahu bari na ci xasaay ci lool te lépp ci yonent bi ci ci yàlla jëm ak yonent bi yaa sayyidi bari na ci lool yaa Mustafa bari na ci lool kon nag képp ko xam ne ki yaa ngi jàng alxuraan mu wóor la ni yàllaa ngi wax ak yow war naa am noo kuy jàng xasaay it mu wóor ni yaa ngi wax ak yàlla war naa am noo mel loolu dañu woon nañu ko fàttali eh, bëgg na nag bu altine jii di ñëw jàmp na naam waaye nag jamono ji moo laaj gàttal gi moo tax mu jàpp ko altine jii di ñëw di ñeenti fan ci weer wi dëppoo ci weer tubaab dëppoo ñaar fukki fan ci weeru euh, rakaati gàmm nee na ci ñëpp jàpp ci ko bu ñu noppee ñu jëf ko addi Serigne tuubaa boole ñaan jiital ñaanal ko moom ci boppam suñu borom yàggal ko fi ñaanal kilifi yi nga xam ne moom ñu bokkal Serigne tuubaa góor ak jigéen te jàppale ko ci liggéey bi lool suñu borom yàgg leen fi te leen ñaanal cheikh serigne touba yi ak talib serigne touba yi bokk serigne touba yëpp wëlbatiku nak ñaanal kilifa diine yi nga xamne ne bokkal tariixa bi ñoom bokkal ñoom bokkal l'islam te bokk liggéey bi ñu ñaanal li ñoom itam suñu borom dëgëral leen ñaanal itam ñi nga xamne ñoy bokk jullit yëpp ci aduna bi ñaanal réew mi jàmm am ci réew mi jàmm am ci aduna bi ay ay fi nek yëpp suñu borom jëlé ko fi ci bak alquran qasayit